wali mbokk jullit yi mbokk talibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullah daara xuraanul karim lëkkaloo ak complexe franco arabe kër soxna mam abalo kamal ci njiital sëriñ maxtar jenn di ku ràññeeku ci jàngale alquran ak yar ci diine moom am mbégte ak tawféex di yëgle tarim alquraanu ndongo ya fa mokkale ak seen feetu fin d'année yi ñuy amal dimanche fukki fan ak ñeent ci weeru juillet 2024 di ko dalee 14 heures ca daaru manaan bu soobee complexe waa kër soxna mam abalo kamal muy événement bu mag xew diine bu mag bu ñuy amal at mu nekk nekk di ci joxe lijaasa ak neexal ndongo ya fa woto alquranul karim ak jox ay neexal ndongo ya raw ca composition ya ca complexe franco arabe waa kër soxna maam awalo ren ñu fas yéene sargal ak feeñal liggéey bu am solo bi soxna may munatu mbàkke bintu sëriñ abdoulahat mbàkke directrice complexe scolaire kër sëriñ abdoulahat mbàkke di liggéey ci jàngale ak ci yar muy bésub alquran bi soppey alquran bi ràññiku lool ci jàng ak jàngale alquran ak yar ci dimanche fukki fan ak ñeent ci weeru juillet 2024 ca complexe kër soxna maam awaloo daaru manaan bu soobee di ko yëgal ak di ci woo kilifa diine yëpp mbooleem soppey alxuraan yi sëriñ daara yi waajuru ndongo yi mbokki jullit yëpp ak mbokk taalibé yi bés bangoog dimanche fukki fan ak ñeent ci weeru juillet 2024 ca complexe franco arabe kër soxna maam awaloo daaru manaan bu soobee assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu